xam ngeen ne li tax sénégalais yi tey ñu ci bari di ak noonante loolu lépp ñàkk rek la ñàkk gi moo metti mais bu fekkoonte ne suñu économie ni mu war a toogee tey boo jëloon Sénégal ñoom ñin ci wax des champions man mii en premier ñu boole ñu yóbbu ñu nigeria boo moytuwul du ñu bokk sax ci classe moyenne ba bu ñu demoon Nigéria ñun ñii duñu ñu bokk sax boo moytuwul ci classe moyenne ba kon foofu la affaire bi toll feebar bi foofu la nekk loolu la ñu war a faj loolu chef d'entreprise qu'est-ce que ko def avec les pouvoirs publics avec l'État, Nous avons une complicité pour nous, ne liggéey ensemble jàppalante am euh, vision pour nous dañ koy partager xam bëgg pour ëllëg pour suñu réew pour suñu économie ñu tabax ko loolu sama conviction waaw li ñuy wax ouvrier agricole pendant 10 mois dans l'année, 12 mois sur 12 sa njaboot di liggéey est-ce que gënul ngay liggéey deux mois wala trois mois dans l'année après toog li ci des yëpp gis nga dëkk fii ñii nii ñi ngi nekk boori nooto tool bi ngeen di gis ay nit ñu nekk bitim réew ñoo ko moom tool bi ñi ko samp ñoom la ñu waxal ba signente ay contrat pour que ñu sampal ñu la même chose fële ci ci tool boobu fii boo fa demee euh, boo fa demee 1500 personnes employées, 1500 personnes Si ñu waxee ak jigéen ni ne foofu ak des yi ne foofu dañu wax ne ñun suñu dëkk bi dem di mbindaanu ji di bindu pour am faire. Nous ñëpp ñibbisi nañu boo des ci dëkk bi ñun ñëpp tabax dëkk bi mu d'engler ou wa Jilax gent nañ ne projet bu melni nii lañ leen bëgg indil parce que projet bi ñom ñoo ñu ciy ëppale ñun dañuy dem rek lebi ci banque bi ay milliards ñeu investir ko fofu ki il paye 105 millions de masse salariale par mois tol bi ben tol 105 millions de masse salariale par mois lolu moy développé dëkk waaye bay man tay buñu ñu calculer woon ñu né 75 hectares.

lol nak kuñ ko indil bëgguloo wax yalla ñun sunu ay entreprises les entreprises sénégalaises qui sont là chez nous dañu néew doole. da ngeen di xol nak réew yi ñu tiim yépp ci Maghreb ngeen xol seeni entreprise fofu entreprise yu am doole am na fa ngeen xool réew yi dans les pays anglophones am nañ ay entreprise yu am doole man japp naa ne Sénégal amaguñu entreprise yu am doole parce que bu fekkee sédiment ci entreprise yu am doole yi dañ ko boole. C'est am de volaille qui est même d'ailleurs dans des difficultés actuellement parce que nous dem investir 11 milliards ils ont démarrer dañ démarré une année deux années trois années c'est difficile quatrième année Covid bi ils se sont retrouvés avec des milliers de tonnes de volaille xamuñu marché chaîne bi monde rompre actuellement ils sont dans des pures difficultés pour faire face à leurs engagements c'est ça la réalité de notre pays